Dakar Midi a lu xew TV ñu ngi nuyuwaat ku si nekk sa tur ak si sant di leen baal ak di leen baalu ak ki ma toogal nag kenn di ko présenté si mim réew muy cinq tonnes borom borom nga xam ne mooy borom géejawaay ñu fas yéene li nga xam ne mooy si làmb bu mu jóge gëj nañ ko gis nag lu tax xanaa dafa nekk si li nga xam ne mooy si ay la waaw maa lay fay di wax ginnaaw mi sant yàlla julli si yonent bi ñu sant suñu ñaari waajur di wax 5 tonnes benn ndaw la bu judd 1997 sixième mois troisième jour hôpital Ndamatou 23 c'est 30 di sant àdduna sant géejawaay di bëggee képp kuy bëggee 5 tonnes xam nga di sant ku ci mel ni Père Moussa Fall borom géejawaay xam nga di ko sant bu baax borom diwlin yi borom ceeb yi borom marché sàmm di ko sant bu baax di tamit jàppale waa géejawaay di sant soxnaam madame Fall maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ah, ñu gis la ñu gëj laa gis li nga xam mooy si làmb ji bépp ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy Wassintor lu ko waral waaw dara ñu ngi may am ay proposition mais ma yi ma yi may proposé ma ma arrangé gu rek vraiment ndax daa am ñu ma bëgg bëreel ci làmb quoi moo tax ay soq daal laa gën a soxla guddiñ toll soq est-ce que ñeme nga soq soq nga bëgg a bëreel waaw moom laa bëgg a bëreel su ma ko amul moom lay bàyyi làmb ko hmm. man maa doon dégg say combat yi nga xam ne moo jam tëri demoon na bu sa ne mais yow si yow la si la tey non loolu musuñ ko dox musuñ ko dox kooku moom man moom bokkuñu yoon làmb sax yàlla na ko yàlla defal bëgguma di wax si moom quoi lu tax bëgg wax si moom yàlla na ko yàlla defal ci aw jëm tëri lan man lu ma jaaxal mbër boo si laaj jam tëri mu ne mu ne bu du wax si moom no kooku moom disi xam ni nga wax noonu dafa gaa jege suuf quoi ni wax ko daan te dafa yomb du ma waate doy na daal nañ ci benn dimension quoi. déedéet muy ma dañuy taxaw foofu noonu ndax làmb nga wax jamtéri ngi ne amul combat dépp ba mu bëree ba léegi mbër mu ne ne non jàlla si keneen émission bi xam nga ku guddul te mënuñoo taxaw ci jëm ci daal lañ ci jàll rek jëm ci moom gaan yàlla na ko yàlla defal jàmm fépp mën a nekk rek kooku moom saa Ah, kon baax comme kon nangu see wax léegi ñu fas yéene waxtaan li nga xam ne mooy ah, làmb ji tey ñu gis ah, ki nga xam ne mooy Lac de Guiers xarit ki nga xam ne yéen a bokk li nga xam ne dëkk li nga xam ne mooy Géejawaay tey ko nattu tey ñu gis cinq tonnes génn wax si tey doo ñu ànd si parole waaw di masaw ay mbokkam di masaw papaam di masaw soxnaam di masaw ñëpp di wax li ko daal métti na métti na trop trop trop mais nattu nag mënul ñàkk si doomu aadama yàlla moom xam nga lu mu wax si doomu aadama su ne su ne diw ci lay jaar balaa faatu faaw mu jaar si wa mais dafa nekk leçon boo xamante ni xam nga la pour ñëpp quoi di wax nit ñi faaw ñu maytu gën a xamaat seen bopp li leçon la pour ñëpp nag waaw. tey est-ce que xoolal waa axlu làmb dañ ko xaw a seetaan. waaw ko seetaanuñ ko xëy na ku xool ci affaire bi ni mu demee nañ ko déggee rek mun mun mun nga mun nga téye sa loxo wala déet mais demewul nen noo xam ne ñoo war cee jàpp xam rek ñëw na Lac de Guiers nit ku baax la nit ku jullite la vraiment te ibi bokk na ci jeunesse bokk ci askan bi waaw. tey ñu gis euh, gis mel euh, ki nga xam suñu papa Bécaye Mbaye def jéego am solo maanaam yëkkati benn som am ni ay nitam dem yi nga xam ne jëkkati xaaj jëndi ko jox ko ko ku si mel ki nga xam ne tamit mooy euh, Boucher def nga xam mooy conférence presse moom ki nga xam moo Fadam de jëf yooyu noonu en tant que mbër en tant que nga xam ne doomu Géejuwaay en tant que li xam mooy porte parole u Géejuwaay tey loo ko gisee. waaw lu rafet la lu rafet la père Bécaye loolu ñu xaar moom. Garga magum làmb la loolu xam mag nag du jëriñ lu dul bu problème amee mu taxaw soutenir ñi nga xam ne ñooy nekk xale yeeg yooyu ah te Père Bécaye foofu la toll si àdduna te xam ne dikkoon la vraiment day jox leçon morale pour ñi nga xam ne am nañu xaaj nekk ci dëkk bi ah vraiment bu Fadam bu ñu ko defee nag def nañ rafet daal vraiment ndax laa dëggee doomu askan bi la quoi nit ku baax la koo xamante nit mën na ko waxal lu ne ba des xam nga ñu gis ah, li nga xam mooy CNG gars yu bëri ñoo ngi ŋàññi li nga xam mooy CNG ñu ne xaalis mi muy dagg mbëri tey ah, mbër am problème sax wala mbër feebar sax lu ñu gis ah, CNG taxaw si. non CNG moom amu fi benn njëriñ moom Bira moom faay dafay nekk pour pour benn benn kii nii rek benn statut rek mais moom njëriñu ñu dara moom amu fi benn pro njëriñ CNG moom seen bop dong lañ fi nekkal yàq làmb dong lañ def amul dara lañ apporté làmb ñoom waa CNG apporté lu ñu tous tous yàq lamb rek. mais xaalis bi leen di dagg tey ñoom fa lañ koy ah, seen yi seen doom yi lekk ko rek seen lekk ñoo ko ko ci lamb dem waaw. te ñu gisal beneen innovation gars yi dañuy toog ne bira seen bira seen bira seen ah, mu nu li nga xam mooy CNC tey da gis lépp mbër bu si am ndax am ngeen li nga xam mooy association bi nga xam ne yéenay jàpp bépp mbër bu tawat wala bépp mbër boo xam ne mooy nekk nag su dul noonu ngeen jàppale ko yéen. xam nga nee nañ mooy président de en activité de leader dégg nee nañ Gris Bordeaux mooy président en activité luttaire comprendre kon moom xëy na gars yi ko xaar loolu moom dina ci dox bu baax moom mooy jiite waa lamb mooy dossier yi quoi vraiment di ko xama waa lamb lamb daal bëgg na gars yi booloo ndax mbooloo mooy doole ta affaire léegi métti na trop jàppale yi amatu ci kenn ku sa bopp la ñor seen seen liggéey fi tous ñu xam xam nga mbëri sonn nañ am na ay mbëri yoo xam ne ñu ngi ci ay problème la da nga xam mbër boobu noonu gaz bi da gaz bi koon këram nu tudd ma albarka kere gars ko faata ci làmb la bokk yeneen yooyu noonu gars yi dañu war di bàyyi xel am na ñoo xam ne ay blessure la ñu am fu ñu fajoo faaw ñu bàyyi xel loolu. foog ñu bàyyi xel loolu mais en li nga xam mooy doomu géejuwaay en tant que li nga xam mooy icône géejuwaay ndax soo nee géejuwaay rek di nga fas nga li nga xam mooy cinq tonnes tey ñu gis jamono ji euh, li nga xam mooy Balla Gaye numéro deux tasante ki nga xam mooy te Tine tey nga nga gis def sortie tey noo gisee li nga xam mooy làmb jooju neex ngi noonu joo xam ne Balla Gaye am na combat bu mat combat quoi vraiment Tapha Tine moom mat na nit am na doole a yeewu ci làmb quoi Balla Gaye di daal moom bu ma doon maytu moom laay maytuloo waaye du ma maytuloo Tapha Tine bi di jol te hmm. soo ko doon conseil mu bëreeg Tapha Tine ak nan la war nar ki nga moom jàpp ko daan mais bu dëggalee boppam mun na am lu hmm. Hmm. li ma doon wax rek bu ko dëggalee boppam moom bu encaissé ko moom waa Géejawaay dañu reer quoi da nga yaakaar ne combat ah, combat bi si xeex lay mujjee wala si li nga xam ah, ah, mën na jeex kay lu tax bu jëlee koom kay day jeex est ce que Balla nga sañ naa taxaw bëri xeex ak ki nga xam mooy Tapha Tine waaw pourquoi am na kay waaw tey ñu ñëwaat di nga xam ne xam nga si làmb la ñuy wax ba léegi affiche yi bëri nañ affiche yi bëri nañ tey ñu ñëw tuuti si li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy couronne empereur tey yow su noon doon eh, cinq tonnes tey eh, kay tey kan mooy roi des arènes yi nga xam mooy làmb ji te gis nañ Aziz Ndiaye ne ne moom day teg couronne tudde ko rampoule de euh, rampoule de des arènes diggante ak euh, ba Balla Gaye ak euh, Tapha Tine roi des arènes moom instant ñëpp xam nañ Modou Lo la Modou yàlla teg mooy roi des arènes amatul benn roi loolu bu ko defee xëy na Zador la bëgg a teg lëgoo Zador mais moom moom moom rek a fi roi quoi mais en tant que mbër yow noo noo gisee kàddu yooyu noonu jaay laamam rek day jaay laamam mais benn roi des arènes na fi nekk Asin Ndiaye day jaay laamam Marc Tinam lay daw rek mais xam na ne benn roi de bu ko keree kay man ma def sama roi des arènes sama bopp boo waa li nga xam ne mooy làmb jamono ji ah, ki nga xam ne mooy Siteu jël ki nga xam ne mooy Modou Lo waaw loolu évolution làmb la mu loo moo pare pour ma essence xam nga lamb ju neex la mais mën na am a ko métti foofu noonu quoi dafa ñëw pour daan ko waaw ah, comprendre nga waaw vraiment quoi. tey ba léegi ah, ah, ja ki nga xam ne mooy 5 tonnes ñu waxtaan lii euh, combat ba léegi noo gisee ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux avant Baldé. waaw lamb bu neex ngi noonu lamb ju neex lamb ju neex vraiment waaw xamante ni daal ñu ngi koy xaar xam nga waaw Gris Bordeaux na sama goro la moom laa ñaanal ndama daan avant Baldé <laughs> waaw. waaw dama gis kat ma rakk ji Maodo nee na nee nañ bàyyi fës. ndax ki mu doon bëre bi paas dafa ne su ko daanee jël jël li nga xam ne mooy Feuz. non garaaw loolu jëriñ ci def loolu am problème dañ def code garaaw yàlla baax na <laughs> baax na quoi yàlla en tant que nga xam ne mooy porte de voix tey noo gisee li nga xam ne mooy réew mi ak ni muy dox ki nga xam ne président bu bees bi di Bassirou Diomaye Faye tey tey mu digle li nga xam ne mooy nañ bale euh, réew mi tant en tant que léegi porte de voix noo ko noonu la dafa set rek waaw set moom moom la moom l'islam da koo digle quoi comprendre waaw ah, vraiment ñu ngi koy xaar ñun jeunesse bi daal di wax ne sonn trop mu gën xam na affaire yi xama mu dimbali ñu ci location yeeg ak faju ak xama dund geeg yëpp daal vraiment jomaay moom vraiment moom jeune la xam na fi réew mi toll ñu koy ñaanal jàmm di ko bi yàlla na oyof te xam nga liggéey bi mënagul commencé ndax day soog a am na yu bari xam ne danga koy lijjanti kër sax xanaa soo fay soog a toog si di nga ko raxas affaire yooyu ah, te gis nga li nga xam ne moo xew fi nga xam mooy Kër Massar tey noo noo lool. waaw noonu la rek affaire moom ku jël sa place normal moom kenn du la yëkkati fi nga war a nekkee quoi mais xam nga territoire moom dañ koy créer pour pour oto santaan ñëpp rek di sant géejawaay bu a baax a baax. Euh, wax tuuti euh, ba léegi tey euh, xam nga faratee l'islam yow. non loolu moom <laughs> waaw wax dëgg yàlla <laughs> xam naa ko vraiment loolu moom. comme mënut a toogal dama la laaj. ndax xam nga farata lislaam nga waxal ma si benn boo xam ne moom mën nga ko def. ah <laughs> yow saa yow wax dëgg de non xam naa moom vraiment waaw julli moom xam naa ne moom lu loo xam lu lu lu kii daal julli. te eh, balaa ngaa julli looy njëkk a wax. bala nga julli kom nan. maanaam balaa am nga ah, jàpp ngay def kay doo waaw soo jàpp après am nga soo jàppee balaa ngaa lal si jaar après. ah da ngay li xam. li xam ne est-ce que mën nga ko. <laughs> yow wax ma jàngal Alxuraan waa nga ma waxal. ñu ah non xam nga yooyu du débat bi mais yàlla xam nga débat man mi ma man maa ku ma toogal dama koy laaj fonk lislaam nga tànn si benn yow ma ne la li xam ma li xaamal gars yi di la déglu ma xam la seen tong mën na li xamul mënul li xam astaghfirullah astaghfirullah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah mhm. aliyah la salat aliyah la salat aliyah la falat qad qama salat allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sa dernier sa waaw wala dama bëgg sax léegi waa garaawal maa ngi sant ñëpp di sant waa Géejawaay di sant aduna comprendre di sant képp koo xam ne yaa ngi bëgg 5 tonnes. ba léegi moom maa laajte moom maa laajte moom maa laajte waaw di sant ni Keba Kanté maa ngi koy sant di ko jox wàcc waaye di ko xaar tabaski di wax vraiment li def ni am solo ci ci ji ndax di nga ñëw question li xam loo ma mënoon a def sax mais xëy na am na ñoo xam ndax dañ si 5 tonnes kii ca mais li ma nga jàngal ko xam nga nit faatiyaa ko saar lañu wax yaw sama nit nga liqaam loo ma la hmm. bëgg nga tarel ma a yaa ayyuhal kaafiroon laa abudu maa ta'buduun loolu rek laa bëgg nga tarel ma ko waaw loolu moom vraiment man maa d'accord xam nga bi ma ko tarel da nga ma incité forcé man man la émission ma maay dirigé moo tax yow rek lay bëggee kooku yaa ngi dégg hmm. li may wax mooy li problème bi mooy da nga maa posé question xam nuru ma ko woon def yàlla xam na loolu mais mais la waaw ma maay laajte sa waay si àdduna yow doomu jullit nga te nee nga taalibi Cheikh Modou Kara nga ah. te Cheikh mm-hmm. a Kara sa su dañoo ay man mënunoo bañal liqaam su ma ko defutoon après lay wax cinq tonnes mënu ko dama la ñaan li laa wërsul nga jëm Cheikh Modou Kara Mbacke mi yaakaar naa kalaa xela nga taril ma qul yaayal kaafiruun laa xul nanga ah, nanga la beneen yoon non dama laa tariloo qul yaayal kaafiruun nanga nanga beneen yoon waaw taram in ahtaynaakal moo gën a gàtt ah, moo si gën a gàtt taril ma li xaas moo gën a xul yàlla kaafir ba ma la ko lixlaas moo gën a gàtt alxuraan kay a gàtt ah, lixlaas moo gën a gàtt di mun nga ma tari xul yàlla kaafiroon wala mënu ma ko tari mënu ma nga xam tamit li ngay def ni baaxul liste yow yaa ngi may laaj loo xam ne même su ma si jaxase ci xam yi xamoo ko hmm. ah oui yow nitu iblis nga yow doomaraam nga de doomaraam dëgg nga wax dëgg yàlla doomaraam nga quoi ah kii doomaraam la doomaraam mun ta passé ngay non ndax te pourtant ndeysaan day sëy day julli de ndeysaan man yow wala boo julli la wax le boo la wax le boo la wax ci yàlla islam islam yaa xam ne léegi dina ji waaw vraiment islam yaa xam yàlla